salaamaaleykum euh, c'est Bathie Sylla euh, seen euh, serviteur comme ni ngeen ko xamee nekk élément du Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké nekk fii ci Touba Mbacké bokkoon si parti démocratique sénégalais bokkoon si directoire campagne en tout cas pour la communication nekkoon aussi secrétaire général UJTL Gabon. ma ñëwoon effectivement pour def ay ay leeral par rapport ak sorti bi nga xam ne. sëriñ Mamoun Mbacke def na ko benn jeunement marabout la boo xam ne dafa nekk euh, Daaru Salaam euh, nga xam ne man mun naa ko wooye euh, chasseur de prime comme ni ko gars yi waxee souvent parce que tamit y a yi nga xamante ne bii bu fekkente ne xew na si si si diggante temps bu gàtt boo xam ne bi muy def déclaration ak sorte yi nga xam ne def na ko ci yenn télévision yi wala yenn site internet dama jàpp ne loolu warul woon am si koo xamante ne bii dañ lay wax kilifa nga parce que euh, au la politique bi ñuy def au la moom en tant que benn jeune wala yu demee noonu famille bi mu bokk je pense que famille la boo xam ne dañ koy bàyyi xel donc euh, c'est pas normal muy am yenn comportement yi nga xamante ni bi c'est pas honorable tey dafay non seulement pour moom mais dafay déshonorer aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci famille non mais xam nga xalaat mun nañ ko wax sans pour autant nga fen wala nga wax loo xamante ne bii à la limite dafay dafay dafay dafay kenn xam mënu koo qualifier parce que euh, kooku di Serigne Mamoun bu ma leen waxee man ak moom ak six cinq cinq quatre autres personne ñun la président Macky Sall recevoir andoo loolu je pense que mun naa la jox 16 jours euh, bon disons 17 jours parce que démb bi may def sa bi may def benn benn sortie à travers sur euh, Facebook 16 jours la mais 17 parce que aujourd'hui bu ñu ko si compté ça fait 17 jours bi ñu bi ñu recevoir audience c'est bien avant sortie après avant après après sortie bi après audience bi ci la def sortie bi mu def ni nga xam ne yàggul pratiquement te sortie bi dama dama jàpp ne sortie la boo xam ne jusque là man je n'arrive pas à comprendre parce que moom droit la mais ak façon bi nga koy defee ak ak li tax ngay dem parce que je pense que moom fi mu jaaroon ak li tax mu dem moom xam na ko ñun xam nañ ko te bu fekkente ne dafa insister effectivement ci yenn situation yi wala yenn euh, exactement chose ni mu demee exactement man mun naa ko mun naa joxe en tout cas détails yi ba mu mat. voilà parce que li may leeral mooy moom en tant que marabu dafa dem en tant que marabu sénégalais d'abord en tant que marabu boo xam ne dafa dëkk Daaru Salaam nekk koo xam ne dafay représenter peut-être waa Daaru Salaam parce que ñi mu ñëwee loolu bokk na ci mais également moom dafa nekkoon koo xam ne nee na dafa yàgg xamante ak président la République. mu nekkoon koo xam ne peut-être xaritam la wala je ne sais pas mais bi mu toogee ba léegi mu mënul ko gis moom nee na mënul gis président de la République donc c'est pourquoi moom mu doon def ay chantage di saaga di def ay sorties yu nga xamante ni bi kenn xamul nu mu tudd donc ci loolu ci la fexe ba def ay démarches ba ñëw gisante ak ñun ñu ne ko de toute façon ñun suñu yitte mooy lan liggéey la bëgg parce que boo xoolee Darou Salaam ñun amuñu fa woon représentant en fait boo may ñun mooy euh, dañu bokk ci benn bokk yaakaar amuñu fa woon boo xam ne moom moo doon def pratiquement euh, médiation wala moo doon def en tout cas link bi entre le chef de l'État ak waa Daaru Salaam y Alioune Badara Cissé mais bi mu gaañoo ba léegi pratiquement kenn nekk fa donc élément bu mel noonu fekkente ne mun na wax ñu di ko déglu mais ñun dañ koy soxla pour mu liggéey ak ñun wax ñu problème yi nekk Daaru Salaam en moom loolu moo ko andi woon foofu mais bi mu ñëwee entre audience ci biir audience entre temps biir audience bi moom wax na fa ay problème personnel yoo xamante ne bi am na ci ay soxla yoo xamante ne bi am na ko discours président de la république ak problème bi nga xam ne waa Daaru Salaam am nañ ko président waxtaan ak moom dalal xelam mu jéggalu ko dem ba nga xam ne comme ni ma ko waxee ku man bu man c'est la première fois ma gis Mbàkke Mbàkke boo xam ne wax dëgg yàlla dina wàcce boppam ba toll ci benn niveau bi te loolu man ba mu koy def dama jàpp ne alors lu mu gëm-gëm lu mu gëm la n'est-ce pas dama jàpp ne lu mu gëm la mais alors que ndekete ay ay ay dóor la donc bi mu defee loolu président comprendre ko ne ko dinaa la defal quelque chose effectivement man ma gis ko mu may ko xaalis non seulement ci moom en personne ak li ko yitteeloon mais aussi ak waa Daaru Salaam non ma wax somme bi mu ko jox <laughs> voilà parce que tamit y a des choses yi nga xamante ne bii moom ak lu ñu mën a woon a wax ak lu ñu bëgg a bëgg a wax duñ ko mas a wax ci àdduna mais ce qui est moom mooy président de la république jox na ko xaalis boo xam ne man gis naa ko te moom xam na ne gis naa ko te xam na ne on était six personnes kese ci fu ñu nekkoon président doon recevoir mu nekkoon benn visite euh, audience euh, audience privée boo xam ne dañ ko doon def ak le chef de l' donc su génnee moom di am yeneen li muy wax je pense que ne encore une fois dafa nekk juste di def encore beneen chantage contre le chef de l' loolu du jàll pour le moment moo wax ko peut-être ma profité ci occasion pour wax ko Sénégal yëpp pour le l'instant la fi nekkoon waneeku na soit man soit keneen comme si man di doon soo génnee di teg loo xamante ni bi méngul ak li tax république bi jóg ak loo xam dafay dévaloriser suñu république billaahi walaay Sénégal dafay jóg jàkkaarloo ak yow voilà donc c'est c'est simple voilà merci gars